mbokki Gossas salaamaaleykum mbokki Paxa euh, ñëwaat nañ ci en direct fii ci Esprit Gossas TV ñu ñëwoon ci mbayum armeewu Paxa yi jóge nañ sànq ci mbayum armeewu njàmbul yi buñ jógee ci mbayum armeewu njàmbul yi dañoo ñëw dañoo demaat ci yi bañ ca paree nag ñu ñëw di ko mottali fii ci mbayam armeeru cuuneen yi xale yi ñëpp a ngi nii ci waar wi daanaka léegi mu jeex ndax euh, euh, bale nañ fii yëpp vraiment ñëpp génn nañ mbay am na solo mag ñi génn nañ xale yi génn nañ euh, daanaka matal nañ ko matal nañ ko ñëw nañ fii ay yi xale yi génn nañ ñi génn nañ village bi ne nii boo xoolee amee yaa ngi nii tuwaay nañ ko ba mu set wicc wicc wicc wicc ña tuwaay nañ ko yàlla fi ne ñaan doo nga ci des kilifa yaa ngi ne toog ñoom sëñ Basiirou Gueye ñoom jëwriñ Moustapha Diaw ñoom Mawlou sek gaa yëpp ñu ngi fi waaw gaa yëpp ñu ngi fi jëwriñ Baye Bassa ngi gaa yi ñu ngi noonu ma ñëw dëkk si leen jërëjëf Ibrahima Diagne ak jërëjëf Aliou ñu ngi leen di ziar bu baax sama gaa yi mbaa jàmm ñu ñëwoon leen ci mbayum Amérique rek leen doon laaj seen xalaat ci mbay mi rek. dara demal rek. jëmm yoo xam ne dañu nit ñu baax ñoo xam ne ñu ko fi sampoon di waa ak tuuneen ñu nit ñi nga xam ne suñu borom def nañu fekkee suñu jamono ñëw di barkeelu liggéey moo waral suñu Moustapha Diaw woote liggéey bi ngir ñëpp taasu seen barke lu baax moom kenn xamul fu mu nekk rawatina nga fekk sa morom julli yu tëdd day defar di jekkal seen barab fi nekk loolu tawfeex mënu ko weesu moo tax ñuy sant bu baax suñu Moustapha Diop bi nga xam ne moo taxawal liggéey ko ñaan suñu borom yàggal ko defal ko taw fii tey nag ñu ngi ci armeel yi cuune armeel waa kër Cheikh Mor Thioune ñu denc fi ay kilifa ak ñoo xam ne bu ñeen ñun sax genn gi ci ñu ci bari sax ñoo fi ñu taxaw def bu rafet ñu leen ci sant bu baax di rafetlu yéen seen taxawaay yi ñuy wane ñaan suñu borom defal leen jëf jërëjëf bisimilah Ibrahima waaw bisimilah kon ñu dem euh, xooli euh, jotaay bi fi ñuy defee ñaan gi fi ñuy defee ñaan yi rek dog yi ndax euh, dañuy def ne saa buñ bàyyee ba pare rek dañuy toog def ay dog def ay dog def ay ñaan waaw bisimilah def ay dog def ay ñaan ndax waaye dawla yi moom dañoo ne lépp loo leen ñaan rek dañ la koy delluwaat. lépp loolu leen ñaanal rek dañ la koy delawaat kon ni comme ni ko waa Esprit Gossas TV di defee ñu topp liggéey mbayam amee yi chaque dimanche ñu déplacé wu ñëw jëmmal bis bi ba képp koo xamante ni rek gis nga euh, vidéo yi ak gis nga liggéey bi soo ci mënee jàpp nga jàpp ci soo ci mënee jàpp nga jàpp ci tey nag moom fi naa ne mooy final bi tey moom ci lañ koy tejee ndax bi moo nekk amee yu mujj yi ba déwénati incha allah bisimilah. déwén di incha allah bu ngeen bu ngeen paree rek su ngeen paree rek ñu def disco ñu def euh, ñaan ñu def ñaan gi sëñ bi bu ngeen paree rek ñu def ñaan gi bu ngeen paree def ñaan gi ñoo ngi nii xale yi ñëpp a génn man ñi amee ah, yaa euh, nañ ko allah Mawlu euh, ngi le ngi Bass aja bismillah su ngeen paré ngi def ñaan gi aja bismillah sëñ basir mbooloo mi ñu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. ginnaaw bu nuyoo mbokki julli ngi santaat yàlla di sant suñu jàmbaar yi Sëriñ Tuubaa xamle nag barab yi ñu doon liggéey nga xam ne ñu ngi ko tàmbali ci jamono yële fii ci barab yi nga xam ne moo nekk ci cuuneen fi leen jeexale ngi tàmbalee woon ci barab yi kër Alaaji Maalik yi fii ci kër El ban fa ba dimanche boobu ba dimanche ba delsee ñu dem ci barab yële ci jaxaw ban barab yële ci jaxaw lañ liggéey ci dimanche boobu boole ko yu looyee ban fa jugee ñëw dimanche bi mu delsee ñu demaat ci barab yële ci yoonu njënd bi 106 barab yooyu matin moom it ñu jubal noonu dem ca barab yi ci gannaaw lycée waa Kanka bi barab yooyu it matin dimanche boobu bi dimanche bi delsiwaatee ñu dikk fii ci barab yi paxa yi ñu Ablaye Diaw waa señ sëñ jaw Diaw Baay dimanche boobu fa lañ ko def moom it bi mu jeexee ñu ñëw tey jii lañ demoon ci yële ci caar jógee fa ñëw ci ci ci cuuneel léegi nag daanaka bi yeboo ma ne barab yi ci dëkk yëpp mat na. ak yu waaw yu yi moom ñoom an mu jot. nañ hmm. leen di woo rek bu tàmbali bi jotee ñoom nañ leen fii woowu leen ñu duñ ko laal ndax ñun ñoo ko tàmbali woon waaye ñoom buñ leen ko waxee rek ñoom bu ñu fa demee bala ñu faa egg ñoom danañ ko liggéey ba mu ba mu yegg. bee jàll nag danoo rëq-rëq léegi ba jël see ñoom lañ ko liggéey ba woote ne liggéey nañ ko ba noppi. si suba léegi. waaw kay mi yoon sëriñ bu baax kon léegi nag tey jii mooy mooy mooy jeexalu barab bi lii nag yombut di ñaan yàlla rek ak yonent bi ak sëñ Tuubaa teg lu kawe suñu njox taw feex ak tey siir ndax ñii dëgg-dëgg fa yàlla nag di leen dimbale ci ñaan di leen dimbale ci yu mel nii dafa baax ndax fan tëdd ñaan rek lañ fa soxla te ñun nit fii ñu nekk dëgg dëgg fa yàlla war na leen ci mën a boole bu baax a baax suñ jullee di leen ñaanal boo toogee ba sa xel dem ci ñoom sax nga ñaanal leen ndax ñaan moom foo ko defee rek baax na bu defee ñuy tuubaat baax baax am na ci ay jëmm yoo xam ne nag comme ni ma ko waxee woon keroog ciy joxe seeni i alal ñi joxe ay mbiskit ñi joxe ay ndox sachet ndox ñii di joxe ay tàngal ñii di joxe ay xaalis ñii joxe ay ceeb kon nag loolu moom ku ko defit sa bopp nga ko defar rek ndax dëgg dëgg fa yàlla lii moom kenn amu ci dara loo xam ne da nga koy jël di ko yóbbu sa kër di ko jariñoo maanaam ñun xéewal yi lañ ciy sedd rek moom lañ ciy wut te yàlla nañu ko yàlla yoon ci Sëriñ Tuubaa defal ñu ngi tuubaat bu baax a baax a baax a baax fuñ fi jaar rek gars yi góorgóorlu nañ ci bu baax a baax a baax di santaat bu baax di sant Baye Bassirou Fall mi nga xam ne moom it muy sunu nijaay di sunu baay di sunu lépp rek fuñ ci dem day ànd ak ñun ba bare bi jeex tàkk ñoo moom it ñoo ngi koy sant di kilifa yi fi yep, yëpp ci ndigalal sëñ Moussa Diaw ko defee ñoo ngi tuubaat buñ fi jógee nag kàttanu yàlla danaan xool bis bi nga xam ne moom def ñaan gi nga xam ne ñoom barab buñ jaaroon rek ci Gossas ak ñi fi bàyyi ko kon kun xam ak kun xamul rek danañ leen defal bis boo xam dañ fay wàcce kaamil jàng fa ay xasida ñaanal leen ko yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa yërëm leen yeexeen ay fal suuf seen kawat xaare leen àjjana barke sëñ Sali di sant xale yeeg rek pour tànk yeeg ñëpp góor ak ndaw ñoo ngi Touba bu baax a baax jërëjëf sëñ Touba yow it nañ la bu baax ndax fu ci dem dag ñuy toog ñoo ko bokk damay dajeeg ni démb rek la ma jógu fekk sama place jógu ndaw ne ma ah sëñ Bass ñoo ngi leen di sant bu baax de seen kii de gis nañ ko barab bi ngeen di liggéey ma ne ko ah loolu de lu baax la dëgg dëgg fa yàlla yéen ñi nga xam ne nekku leen fiit yéen a ngi ciy bàyyi seen waar ndax seetaan bi rek seen xol seet di teg ci ngeen bokk kon loolu xewal la te yow loolu lépp yow la ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal sa mbir mi sa site bi jëm kanam barke sëñ Touba fa nga ko bëggee rek yàlla yóbbu la ko barke suñu Tuubaa ma ngi baax a baax jërë ngeen jëf rek lay doon soññ baax def lu baax nga soññ ko da ko yokk waaye du ko wàññi te bokk ñun ñëpp rek di góorgóorlu ci baax ndax danaa suñu mu wax ne war a xamul ñu am la yéen ci taxaw ñuy fii tey boo ci ne mu jóg di boo gën a loo dana delu aduna ba liggéey yàlla sun borom donte benn saal benn minute wala benn saal loolu lañ gën a soxla ñoom ñu tëdd fii tey ndax xam nañ li xew ñoom ñun na xamuñ ñu xew ndax ñoo ngi noy ñoo ngi lekk di naan def ñu neex di tëdd fu ñu neex di lekk ñu neex di naan ni ñu neex waaye ñoom fii nag li ñu gën a soxla mooy di tuwaat aduna ba jàmm yàlla xam nañ xew borom nag borom kàttan la moo tëragal la wata jama ba khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun nee na bindu ma leen de lu dul ngeen jaamu dong tax ma bind leen lu nga def seen bopp la ñeel ak seen makkaan waaye man li ma soxla ci yéen mooy jaamu ak ragal ragal yàlla nag koy def ku nekk doo ko rëcc mukk waaye ku ñëm yàlla ku bokk jaam yàlla di dimbalante di jégalante di balante ak te ànd te yàlla si yoon tax te bañ di jiwante bala ñuy lambaaj nañ bàyyi loolu lambaaj baaxul jiw baaxul ndax su morom julli dañ ci waa dafa xam li nga bëggal sa bopp na ko bëgg lii borom nangu baaxul du waaw yàlla mi ngi ñu gis mi ngi gis lépp li fi def xam na ko loo def xam na ko innahu yahlu ma jahru ma sa lu nëbb loo nëbb defee nëbb nga ko mën ngaa nëbb mi fi def ay yàlla mën mën a jàkk ko ndax ñu ma ko wax bis bu ne rek boo demee ayatu kursi mu wax na daa taaxu suuf sunu tun wala nangu man yàlla duma gëmee tuuf ak di nelaw waaw waxan doo gëmee doo nelaw nag dara mun la ndax mhm. loolu tam fekk ko mhm. kon nañ góorgóorlu bu baax buñ nëbboo ak buñ feeñee mhm. waaye nag ci buñ mbooloo di def lu baax di ko wax te bu gën def ak caay-caay sa bopp def def ko kenn am yi mel ne jaaxaan di saw rek sa bopp lay sa bopp lay di ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen soñ bu baax ngeen góorgóorlu ah, gën a baax nag mooy tax a baax waaye gën a góorgóorlu ci li gën a dellu gën a waaye doo leen sant bu baax di leen ñaanal fan bu gudd ñëpp du tànk yeeg ak ñoom ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp te yàlla tax waaw lu baax moom ku koy def ku nekk ku lay gërëm xanaa da lay gërëm rek soñu la pour góorgóor waaye yaa ngi def yaa ngi def lu baax yaa ngi am ndax ku def lu baax am lu baax ku def leneen am lu ne loolu sax mooy góorgóor lu baax rek sax ci ndigal bàyyi tere kenn ku la gën nga xool mu wóor la wala kii moo la gën wala moo ëpp lu muy def si baax ñoo mel ni moom ndax boo royee bu yàggee rek nga mel li muy jafe-jafe yëpp boo seexee ci di ko jàng bis bu ne da nga mujj miin da nga ko mujj ba mu yàgg nga mel ni sax war waaye sax moo am solo kon yàlla na saxal ci lu baax ñu ngi leen لو بيبل استدنا ما <laughs> <laughs> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله بخبر دولة جار waaye di ko ñaanal bool mu xale yëpp rek bàyyi ñu kenn wala ñu waaye di ñaan baax a baax a baax baax Sëriñ Fall mi nga xam ne suñu jaay suñu kàddu yi mu bawoo ci moom bu ñaan suñu borom ko dëgëral sant bu baax a baax si liggéey bi nga xam ne lépp nga xam ne dañ koy ji ñu nekk seen ginnaaw yi waaye waaye di siyaar bu baax boole bu jëriñ ñu teew yëpp yaa ngi jàmm waaye di ñaanante ak cant boole bi nga xam ne seen at bi yooyu tàbb na ci liggéey ak mboole nga xam ne yéene bu gën a teew mboole nga xam ne teew na ci liggéey yàlla na yàlla boole ko bàyyi ko soxla yàlla moom gis na def kon nag yàlla na yàlla santaat bu baax a baax rek ñi nga xam ne si tamit saa su ne bis bu ñëwee ñu ànd ko ñu ko mu jeex tàkk te duñ ci ñoom lépp te nga xam ne lépp liggéey si borom waaye noonu wax tax si ñu wax dëgg jëmee ànd daal di far ne ngeen boole si bu mu borom baax a baax bi nga xam ne ñu ngi lépp na di ay xéwal yoo xam ne tamit cant la rek waaye ñuy dolli wax ne wala mbay daw yi nga xam ne suñu borom dool la ñu jiitu yàlla na yàlla yokk seen i leer wàcc ñu bu baax baax si day wax ne aji dem moom amul lenn lu ko mën tosaytu mooy ki nga xam ne si moo nekk ci ginnaaw dafay wax ne ñett yi maanaam ki nekk ci biir kosom ak ki nekk ci biir bàmmeel ak ki nga xam ne si ndimbal rek la nekk ginnaaw waaye kenn mënu ko defal kon ñoom ñi nga xam ne tamit yàlla daal dogal na ñoom dañu fay jógee du seen yaafus moo tax suñu borom jël leen déedéet waaye ñun ñi nga xam ne dañ fay des suñu jàmbar moo tax suñu borom bàyyi dañuy wax ne nañ fas yéene jaamu ci yàlla du la waaye def lu jaamu yàlla lay wax jaamu yàlla rek nga alxuraan ne wa zakki inna faat sikra tan fax mu yàlla ne dama dañuy fàttali ñu rek ma xalaatu insa wal jinn illa li ya'budun bind mu nit ak jinn ñu jaamu kon nag lu la waaye def lu def rek jaamu yàlla da lay nax sa bopp Tuubaa kat mi yaakaar jaamu yàlla moo ko tax moom ku julli bu julli ci géej nga xam ne kon root suñ Tuubaa mooy lislaam damay wax ne lislaam ji ñuy wax ni ñun surtout ñun murid yi kenn ku ñu ci jiitu lu ko waral mooy suñ Tuubaa amul lenn loo xam ne defal na ko suñu borom dana dina yoon woo xam ne si dama ko sos ci diine ci faral ci sunna tax si mu bi sunnat yàqu dina la jënat yàqu yaa di nat li amul leen loxo xam ne koy damaa yeesal diine yi tey naa ma sallallahu alayhi wa sallam te Moustapha nawet bi maa ngi xaraaroo yi ñu am kon nag nañ ko wàllu jaamu jamono jii nag moom taxalee ber na lool ak sëriñ sëriñ si nga xam ne si nekkoon si lu timit di laaj xale yi toog ngay seen addi di leen jaamu loo yàlla du leen def dara lu àdduna wallaay laa si ko jàkkaarloo taalib ëllëg di nga am njaboot gii tamit nga xam ne yàlla dañoo ko dimbale ñu ànd dañ fonkaan njaboot gi dafa seen ne yàlla alxuraan ne ku anfusakum wa ahliikum naaran waquduhaa an-naas wal hijaara njaboot gii ëllëg yi ma xam képp koo xam ne si foo ko woo ci mbirum ci mbirum sawal da nga gis koo xam ne sa njaboot da la jël bëgg a dugg àjjana mënal la gaay nga mënal da ma waroon a teg la teguma ci dañ jël njaboot teg dañ ci islam naan xale yi mënuñ leen dara dañuy caaxaan yàlla bu ko soxla sa njaboot ba ko teg yow nga yéene woon boo ko dara da nga na ko jaaral fii mu jaar nañ gën a góorgóorlu waat dafa see tegu ci yàlla bëgg dafa see tamit Touba bëgg waaye caaxaan yi bari loolu ku nekk na suñ Touba laa yaakaar deful dara suñ Touba daa ngay nax sa bopp suñ Touba nee na kenn deful kenn dara lu waaye sa bopp kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yàlla nañu yàlla dool ñu bëgg at yi bëree bëri suñu borom dool ñuy dimbale wér ak kàttan ak cat ak mucc ak balaa ak saytaan yàlla nañu yàlla dool defal xéwal yaatu yaatu yaatu barke Cheikhuna Cheikh Saliou yàlla na suñu borom defal diig topp jëriñ jaay Cheikhuna Cheikh Saliou barke taala barke لا مستغفر إلا بالله عليه توكل وإليه asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaw kon Baye Bassirou Fall mu ne ñoo musul ci saytaane jàng fatiha bu sell bu ànd ak bisimilahi rahmaani rahim ak fukki lixlaas fukki xul oo allahu ahad yu yekk yu ànd ak bisimilahi rahmaani rahim tëje ko salaat alaat nabi bu waay man ñu yéene ko way dawlu yi ak ñeneen ñëpp rek ko képp kuy waaw dawlu rek yàlla ak yonent bi yërëm leen ak suñ ఒక దినం Kimin gadim tekrar? Allah'ın gadim tekrar. Allah'ın gadim tekrar. Allah'ın gadim tekrar. yooyu wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu ndax euh, day ay place yoo xam ne euh, ku koy defal sa bopp koy defal ndax xëy na yàlla yàlla yow lay fay waaw ah, sëñ Moussa Diaw wax dëgg yàlla initiative bu jëlee ba léegi chaque année kon amuñu lu leen sant rafetlu nag te li ngeen ci yéen li ngeen ci bëgg yàlla ko suñu borom def yàlla mooy fay nag moom da ba at mu jot yàlla gën leen may loolu moo defee yàlla moom defal moom sànni woo ko ci yàlla waaw kuy defal moom borom sànni woo ko ci yàlla السلام عليكم Kamu lenyap, kamu lenyap. Amin. Eh, Amin. Kamu lenyap. Thank you.